aca salaamaaleykum mbokk internet yi suivre site bi di wasaare ginnaaw ba ñu leen nuyoo tey jii nag ngeen koy gisee ñu ngi fii hôpital dalal jàmm ci nakar ak bi nga xamante ni dal na ci kaw sénégalais yi rawatina axlu làmb muy Serigne Modou Niang nekkoon li nga xamante ni moo di promoteur si làmb ji ñëpp ràññee ci moom moo daal di ñàkk bakkanam loolu moo tax ñu ñëw fii ngir saataan ay témoignage si famille woom ndax kat fu mu nekk nii dama naan Sénégal ñëpp ñoo ñàkk rawatina ñi nga xamante ni mooy axlu làmb ndax Serigne Modou Niang nekkoon na promoteur bu mag ndax lamb ji nga xamante ni waroon nañu ko amal tey ji moom moo ko naroon tëgg waaye nag booy programme rek yàlla mooy programme waaye tamit yàlla bu soxlaa rek ab jaam day ñàkk kon dañu koy sante yàlla bu baax a baax di ko jaale ay mbokkam di ko jaale tamit ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi ci lamb ji rawatina ñoom promoteurs yi Serigne Modou Niang ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare aljanna firdawsi ñun waa Wassare ñu ngi koy jaale ab bu baax a baax ay mbokkam di ko jaale ahlu lamb yëpp xalil bu baaxee rek ma dugg ci biir gisee ak ay mbokkam ay jegeñaaleem waxtaan ak ñoom euh, laaj leen ay témoignages ci sëriñ moodu Niang. asalaamaaleykum kilifa gi nuyu naa la. maaleykum salaam soxna si maa ngi leen di fay. ginnaaw ba ñu la jaale li nga xamante ne loolu la ñu bokk nga mën ñu ñëwalatal ci lan nga ci bàyyi euh, Serigne Modou. waaw Serigne moom soxna si nit ku baax la nit ku yiw la nit ku yaru la nit ku am yërmande la nit ku maanu la sëñ Modou nit koo xamante ne lu waay am yeneen na ko sëñ Modou boo gisee tey jii. promoteurs yi di dem bay tëgg mercredi yi moo fi njëkk a indi làmb mercredi yi parce que bañ a xëccoo du xëccoo dara sëñ Modou daal man nag sama lépp la mënumaa wax si moom parce que sama xol dafa tooy barki bi sëñ Modou moom bu may wax ci moom mu yàgg du baax si man vraiment vraiment vraiment nax nañu daal ba dem yàlla. Modou moom mu dafa feebaroon wala feebar bi yàggul ci moom. feebaru feebaru feebaru kii yooyu rek feebaru maanaam feebaru ndakaaru rek la feebar waaw yaram wi moo xaw soofoon rek waaw. kañ la ñëw fii ci hôpital bi. xam naa ni daal ndax man wax dëgg yàlla mun xaw mu kañ la ñëw ci hôpital mais ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi doon déggante bërki démb xam naa daal bërki démb trois jours daal la fi am waaw. dégg que ne moom moo waroon tëgg sax làmb ji nga xam ne moom la ñu amal suba. tey jii du suba tey tey jii ko yàlla moom tey jii moo waroon a tëgg journée am la waaw tey jii moom moo waroon tëgg waaw. kon nga baal ñu présenté ñu tur bi nan la. waaw man maay Papa Ndiaye Aïda Mboup man maay Papa Ndiaye Aïda Mboup di léppi sëñ Modou sëñ moodu fu ne dem ànd nañ fa fu mu mës a tëgg làmb ci ci ci àdduna ci Sénégal rek maa moom ñoo fa ànd muy Casamance. muy Kébémer muy Guinguinéo muy Kolda muy Mbour muy cees foo wax rek foo xalaat rek fépp foo xalaat rek nii sëñ moo tëgg na fa làmb neel Papa Ndiaye de Mbuub moo yooyu làmb ja bañ na ko ba da ko doon wax man sama diggante ak Papa Ndiaye de lépp lu ma sama lépp ci làmb moom la waaw. sëriñ Modou moomu yan kàddu ngeen mujjee weccelante yéen ñaar. ma xam nga sëñ moodu ñun chaque jour ñuy waxtaan chaque jour ñuy waxtaan mu ngi mi ngi may xamal ni dafa ma bëgg réew mi di ko seede ma koy xamal ni dama ko bëgg réew mi di ko seede sëñ Modou chaque jour ñu ngi waxtaan te saa yi ñu waxtaanee mooy góorgóorlul muñalal sa njaboot jàppalal sa njaboot maslaawal goreel nekkal fa nga nekk parce que sëñ Modou boo gisee ma gën koo jàpp da di si gor dafa ànd ak président Abdoulaye Wade yàlla def mu wàcc teewul mu continuer di ànd ak moom lu ne gis na ko pour mu pour mu pour mu déplacer wu mu gor la ciment la benn yoon lay tooy yàlla def ni sëñ Modou sunuy wël sunuy sunu waay sunu woy jur yi la woon sama yaay ak yaayam la ba pare ñoo bokk koñ muy sama lépp waaw vraiment sëñ Modou daal mu ngoo rek. la koy jaale bu baax a baax di la jaajëf. maa ngi leen koy jaale yéen itam di ziar bu baax ak jërëjëf. salaamaaleykum kilifa gi nuyu naa ñu ngi sant alhamdulilah. ginnaaw ba ñu la jaalee ki nga xamante ni moo di Serigne Modou Niang nga baal ñu fàttali ñu tur bi. Euh, man birim lañ may wax mais Mamadou duggee laa tudd. Hmm. yan témoignage nga ñu mën a jox ci promoteur bi nga xam ne moo di Serigne Modou Niang. Sëñ Modou Niang di xamoon nañ ko ci mbaaxam yaatuwaayam ak dimbali doomu aadama loolu lañ ko xamee woon bëgg ay mbokkam aussi waaw loolu daal moom lañ ko mën a xamal suupal nag dal loolu lañ ko xamal waaw. sëñ Modou Niang feebar bi daf ko yàgg daaneel wala. daanaka da yàggul nag yàggul parce que fii amu fi ay fan amu fi ay fan. mën nañu xam kañ la ñëw ci hôpital bi boo ci mën. loolu nag moom mënuma leen cee tontu xanaa bu ngeen yeggee ci biir xëy na am ñu gën a mën a placé muy ay doomam wala ñi ko gën a jege mën nañ la wax bañ na kii. mu mel ni waa Axlu bu ñàkk nañu promoteur bu mag. waa Axlu rek ñàkkuñu maanaam tëgg yi ñoo ñàkk bijouterie yi ñoo ñàkk parce que ñun ci tëgg lañ ko xamee ba ni muy nekkee promoteur waaw. yan kàddu témoignage nga ñu mën a jox. ah yi xanaa yal na ko yàlla xare àjjana remplir na mission am ñu ngi koy sant di ko gërëm yal na ko yàlla xaaree àjjana rek loolu rek lañ. ñu ngi lay jaajëfal di la ko jaale. jërëjëf maa ngi ziar naa la. dellu ziar a wér. ginnaaw ba ñu la jaalee nga baal ñu présenté wu. waaw la Ndiaye production. ba ñu la jaalee xamante ni moo di sëriñ Modou Niang ñu bëggoon nga joxe ci ay témoignages. waaw sëñ Modou moom témoignage am yomb na trop ndax nit ku baax la nit ku baax la nit ku calme woon nit ku teel la woon nit ku amoon ambition la nit ku amoon kóllëre la tamit ndax moom nitu kóllëre la nitu principe la woon. di nekkoon koo xam ne jàpp nañ ne bokk na ci gën a dal ci làmb ji gën teey du xëccoo dara doo ko dégg ci dara nit ku mel noon nag nit ku baax moo koy def ko amoon sutur la it ko amoon dal la woon kon nit la woon koo xam ne nit ku baax la di suñu papa ci làmb ji kon dañ koy jaale doomam jagañaa di suñu xarit di suñu wëllëre di ko jaale monde laa di yëpp ndax euh, idole icône ci làmb moo dem ndax sëñ Modou icône la woon ci làmb ku mel noonu nag bu ko làmb ñàkkee duñ def lu bàyyi suñu ay yite ñëw ci levée koo bi gunge ko ci këru dëggam tey ndax yaakaar naa loolu rek la julit mënal mbokk julitam en tout cas ñu bu ko cat jiitu ci bàmmeelam suñ boom xayu gaaj naa fi daw si ndax nit ku baax dem na mu mel ni que axlu làmb tey ñoo ñàkk monument waaw moom li ma la wax léegi axlu làmb ñoo ñàkk ndax tey boo gisee tey yaakaar naa gars yi dañ koo yéex a dañ koo yéex a yëg sax mais monde de la lutte yaakaar naa dans 30 minutes ñëpp ni leen gis fii ndax sëñ Modou moo toll noonu te moo mel noonu ndax monument la woon référence la woon modèle la woon ci làmb yaakaar naa ñun ñëpp bu ñu amee inspiration ci làmb ku mel ni moom ak ay moroomam inspiré nañu bañ maa dugg ci làmbo te kenn mës koo dégg coowal daraay làmbo lu dal ak teey ak calme ku mel noonu nag bu demee dañ koy ñaanal rek. Mhm. jërëjëf ñu ngi la koy jaale bu baax. jërëjëf ba tey ñu ngi nii ci levée du bi ñu ngi nii ak Pape Pape Abdou Fall di promoteur nekkoon nawle Serigne Modou Niang père dañ lay bàyyi nga nuyoo aussi ñu ngi lay jaale li ñu bokk. waaw inna lillahi naa inna ilayhi rajiun te dañu yeewu ak ndogalu borom bi suñu mag suñu frère. suñu doomu ndey El Hadj Serigne Modou Niang yàlla jël ko muy nit ku jullite nit ku am yar nit ku am teggin nit ku am iman jàmbaar un homme qui a tout donné à son pays un homme qui a tout donné à la jeunesse de son pays un homme qui s'est toujours sacrifié pour l'occupation des jeunes de son pays donc moom la yàlla moom tey euh, muy nit koo xam ni nag euh, njàngat la ci àdduna toujours mu ngi ci roqam jàpp njàmburam def li mu war a def toog kon bu ñu def lu dul rek yàlla na yàlla yërëm ko yàlla na yàlla teere ko ci teeru ko ci aljana yi gën a kawe en tout cas Sénégal ñàkk na jeunesse su Sénégal ñàkk na monde làmb ñàkk na parce que lu mu doon dee dee dee ba tey jii may wax ak moo waroon a tëgg kon mu ngi employé ay jeunes mu ngi jàmbal jàppale état ci liggéeyam en tant que un digne fils de sompi kooku moo fi jóge ñu nekkoon nag moom ci jàmm ak salaam ak yiw mu doon suñu wëlëre loolu daal moo justifier suñu teewaay fii yàlla nag bu soxlaa jaam bi day daal di nangu li ci des mooy ñu ñaan ñëpp dellu ci yàlla lu sax ñuy ñaan dafa xam loo xam ne daf nu war ñu xam ne bis bi jombul kenn dañ leen nekk ci lu baax def lu baax ci dox lu baax ah di jàpp ci lu baax bis bii na ko ñëpp bàyyi xel moom mbiram féete na boor te li ma gëm ba gëm du yàlla du ma bi waaye firdaw si la jëm ci aljana yi gën kawe parce que nekki na moo rafet yaruteem jar na ko dimbali doomu aadama jar na ko dimbali réewam jar na ko dimbali njabootam ak taxawu leen jar na ko loolu daal mooy justifier suñu présence fii yàlla na ko yàlla teeru ci àjjana yi gën a kawe yàlla may njabootam ak wóllëreem ak xaritam yi ñëpp xolu muñ te incha allah yàlla na ko yàlla def yal na yàlla nangu lépp lu ñu fi ñaan jërëjëf. incha allah gis nañu ki nga xamante ni moo di Serigne Modou nekkoon loo xamante ni promoteur bu mag la woon ci làmb ji kon fi mu nekk ni mu mel ni waa axlu làmb tamit te ñàkk nañu monument. mi mi mais c'est ce que je viens de vous dire euh, loolu laa la wax euh, làmb dama ko jël sax seppi ko j'ai parlé dans la généralité Sénégal mais moom ku ko xam xam ko ci làmb. Euh, moo ñu njëkk ci làmb gën ñu ci yàgg def ci loo xam ni mënuñu ko sax dab et que ci base confiance boobu ak ni mu ci nekkee woon en tant que digne fils pays moo ñu encouragé ba ñu daal di teew ci biir làmb kon ngàcce ngaalaama mosuma ko dégg ci lu ñaaw mosuma ko xam ci lu ñaaw modèle la sama xarit la woon suma confident la woon daan nañu daan seq ay waxtaan yu sori mu jekki-jekki woo ma wala ma woo ko wala man bi may mujj dama dem seeti ko ñu am ci lu ñuy waxtaan ñuy waxtaan ba xolam tooy man ba ma fay jógee sama xol dafa tooy ci këram fii ci pikin yàlla laa jël seede donc euh, làmb ñàkk na njabootu làmb ñàkk na Sénégal ñàkk na waaye it amateurs yeeg ñëpp ñu nekk ci làmb ñàkk nañu tey nit koo xam ni yàgg na leen taxaw yàgg na leen jàppale yàgg na leen bégal yàlla nag bu soxlaa jaam bi day daal di nangu yàlla na ko yàlla xare aljana yàlla na yàlla teeru ko ci firdawsi yi gën a mag a mag a mag mag yàlla na yàlla teg loxoom ci njabootam ak ay xaritam ak ay àndandoom yàlla may leen xolu muñ yàlla na yàlla nangu. waxee ba tey ñu ngi nii ak ki nga xamante ni moo di Père Pambaay Père Pambaay mën naa ni bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo njëkk a teel Serigne Modou Niang micro central pendant des années ñuy liggéey Père tey nga ñàkk. aussi ñu ngi la koy jaale auzu billahi mina sheytaani rajim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin saydina wa mawlana muhammadin wa ali wa sahbi wa sallama tasliman rabbi israh sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di sant yàlla du julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal sëriñ Muntaxa yàlla yàggal te wéral di ko ñaanal mboolem góor yàlla am ngërëmal yàlla yëpp di wax ni tey bés la boo xamante ni wax nga ko maa ngi jóge léegi ci waa Lutte TV daanaka kàddu gi benn la sëñ Modou Niang dama koy faral di wax naan defar na ay woykat defar ay champion defar ay micro mais slogan bi ma gën a neex mooy jëlee ci suuf yóbbu ci kaw moo jël ci suuf Balla gay jël ci suuf Modou Lo Bombardier Gouye Gui je suis li may wax ne yóbbu ba ci kaw ba tey ji kenn ku ci ne ci ñoom tey yaa ngi yor sa teraanga yàlla indiwaat ko li ko gën a leeral mooy tey moo war a tëgg ay espoir la tëgg jële ci suuf yóbbu ci kaw boobu depuis vingt et un ans vingt deux ans ci ren mu ngi ci jël ci suuf di yóbbu ci kaw li lay wan ni la sëñ Modou Niang nitu yàlla la xool li ko yàlla defal tey maa la mën a waatal ni xale yi bëreeguñu mais seen ñoom ñëpp amelul ci kenn dërëm benn mbër du taxaw buntu kër di ko laaj xaalisam dafa am mu doon sóor bés bi xal-xal mawtu wal xayaat suñu borom dee la jëkk bind te lii liggéey la rek waaye jëlee si yóbbu ci kaw boobu da doon wane ni man xale yi ñoo ma intéresse mais du làmb tëgg na làmb taxawal ko làmb ji ñoo fees dal neex ñëpp ñëw seetaan te doo ko gis moom mu tëdd këram kon xanaa xale yi ñoo tax ñoo ko ñor te wax na dëgg nee na boobu ngande tey métti fu mu toll bu ndaw te sedd guy mooma ko gënal man ko lu tax mun ma 100 millions yi ñuy jël ko séddale ñaari mbër ku ne 100 millions am ko mais du tas ko ci xale yi ku ne am loo yóbbu sa waaye kooku yàlla na ko yàlla fay xolam waay man c'est en mille la lama jël période boobu la wax période la vache maigre xam nga luy vache maigre mooy jamono boobu lamb ji doy na waar sponsor retiré wu làmb ji métti na Gaston téye na loxom ñëpp ku ne téye seen loxo mu na moom du bàyyi waaye dina créer benn système muy làmbi banlieue ba mu xam làmb ji làmbi supporter yi ak fans club rek la benn amateur du ñëw ndax ñu ngi doon sóoraale violence yëpp mu indi ko làmbi géejawaay Tëngéej Bargny Yoof Wakaam Ngor ci lañ ma coopté comme microcentral 2008 ak léegi ça fait combien ne 15 ans ci ren c'est pas kon su ma nee génn na ci suuf yóbbu ci kaw def na ko ay promoteur def na ko ay ay tëggkat def ko ay woykat Papa Ndiaye Edembu defal ma ko man mi tam kon dëgg la man je suis témoin oculaire mais dama ne man depuis 69 diggante Mbaye Guèye euh, Mohamed Ndiaye Robert ak Mame Gorgui fi marché HLM ne ba tey maa ngi ci làmb ci te kenn xaw ma lu tax. 69 léegi ñaata at la ça fait plus de 50 ans 53 ans ci ren kon bu 2008 su ma jëlee nit ma xam ma kon mu ngi jël ci suuf di yóbbu ci kaw wax na dëgg jël na ci mbëri yóbbu baa Gaye ak Modou Lo jël ci euh, communicateur yóbbu ci kaw jël ci tënkat yóbbu ci kaw mooy yëkkat yi ñoom Papa Ndiaye Aïda moom ñëpp a ngi ci kaw kon kooku yàlla bu ko fayee xolam xëy na gisu ko daf ko wax pare rek mais gisu ko tegu ci bëtam ndax loolu mooy sooy def da def te yàlla tax xool bu ci teg bët mais loolu jaamu yàlla bu mag la ndax man saa bu ma liggéey bu ma pare mu fay te ci liggéey boobu ma koy liggéey ci la ma ñeneen gis Fallou Ndiaye maa koy yoral micro central léegi neel benn Jax neel ñaar Yaram Aar neel ñett euh, Fouta neel ñeent euh, Ousin Ousin production neel juróom Badiane production neel juróom benn Karkar macha allah mun naa dolli de. mais dama bëgg yem foofu nii rek à travers Serigne Modou Niang ci micro booba ma yoroon ci lañ ma gis may liggéey liggéey boo xam neex na leen ñoom intéressé na leen neena nañu dama koy def comme ni mu waree ba man j'ai été décoré par le CNG tey laa ko doog wax. je défie qui décoré par CNG ci te loolu ci liggéeyu sëñ Modou Niang laa ko amee ñu woo ma CNG y avait tous les communicateurs traditionnels ñu taxaw ñu yëkkati enveloppe ni ma daan nañ la wax. góor góorgóorlul mel lu mel ne taxaw ñoo koy wax mun ma ñoxor ndem si yàlla si arbitre bi ñu wax def na témoignage si yow rapport génn adduna àdduna Thierno def na témoignage ci yow di wax di wax di ma limal ni ma nag enveloppe bii président yi ngi toog Thierno Ka moo la ko jox Ipo Ngaare ngi toog suma mag Ibou Ndiaye ñoxo bàyyi ngi toog sama mag kon loolu xanaa kon man dama ko su lëg-lekkee alam daf ko war a gërëmee cooy loolu yëpp su amee xanaa kon su ma sëñ Modou génnewuloon en 2000 du ma ko am du ma ko wane sama talent kon jëlee na ci suuf yóbbu ci kaw am pagaay man man à mon nom personnel su ma neexee ma ne aw nom de tous les communicateur traditionnels ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko cat bañ na jege sax yàlla bu ko cat jege fa mu jëm mu yaakaaram seen Tuubaa mi xam ne yonent bi sallallahu moom lu mu am yonent bi sëñ Tuubaa bi wa sallallahu ala wa muhammad moom ku ne xam na ko haza matlabu shifa fi tawassuli wala mu ne jawartullahi bil kitaabi wala muwaabi naa fi madasa fi mais day julli ci yonent bi kooka nga xamante ni nee na lu yombal xiyaam ku mu mënti doon la wax yonent bi moo ko wax ne ku doon ku mu mënti biir alaaji Malick man taalibe sëñ Fallou la ñëpp yonent bi lañ yaakaar kon ñu ngi ñaan ci barke kooku yonent bi sallallahu alayhi yàlla bu ko cet jiitu si bàmmeel yàlla na ko Serigne Touba teeru Serigne Modou Niang li ñu mën a wax ci moom ma sha Allah illaa alima mooy nit ku lewet la ku baax la ku dal la nit ku maandu la nit ku mën a liggéeyal te amalu kenn dërëm te sedd guy amul benn safara waaw kooku nit yàlla noonu lay mel lii liggéey la lii liggéey la yaa ngi nii ba bërgate yaa ngi am si ki am ci tur ba adduna bi daj boo de foo na te guy 95 ñëpp xam nañ ko ndax say vidéo man tam ñu ma commencé xam te loolu nag ki ñu may opportunité benn opportunité bi dañ koy sant gaañ bu ñuy sant tamit ku hôpital bi mais bu ñu fàtte ki taxani woon. sëriñ Modou moom bu ñu déggee ci ay kàddu ma nekk koo xamante ni yàgg na ak yow bu ñu bëggee xam kañ nga ko mujjee dégg rek ak yan kàddu la la dénk. man de ça m'a surpris loolu rek ma ci metti nag dem naa benn ngénte Kër Massar nekk fa maître cérémonie ndooy mi nga xam ne coordonnateur bi woo ma pap ma gis ko ma foog daf may rappelé bés bi. loolu la sama xel jëkk a kon li dévier sama xel loolu dafa metti bi ma ko gisee toujours jour yu mel ni daf may woo mu ne ma Pape Mbaye yaa ngi waajal te ce moo xam sëñ Modou la moo xam beneen ko promoteur la toujours noonu la defee man kon donc subitement bi ma gisee appel am bi may décroché bi may ak ak ak ak ouverture ferveur ak engouement neex-neex yooyu laa doon santé mu indil ma nouvelle bu bon bi na ma yàlla baal sax xaw ma bon la xaw ma mais yoon la ko yàlla bëggee xalaxal mawta wala xayaat yàlla dee la jëkk a bind mun ma Pape naa mun ma sëriñ moo noppalu léegi alors subitement nga xam day jóge fii rek dem fee dama jóge ci ci ci bànneex rek dem ci naqar brusquement mënu ma gérer loolu te maa ngi woon ci tudd ñu ngi waaj a tudd ma nekkoon maître cérémonie bi da war a waxtaan. alors man yëguma feebaru sëñ moo Niang te mu suma xam ne dafa wérati ndax man bari mu fa tànk nag ndax nit ku baax la koo xamante ni waaw maa ngi dégganteeg moom bu baax dama koy jël sax en pleine émission sama émission woo ko mu dugg foo mu tëdd di intervenir aw lu ma ko waxal te keneen amul lu ko waxal yëguma feebar yow mooy daal may bett na ma. wax dëgg yàlla bett na ma deewam bi bett na ma ni mu gaawee ni mu bettee nii ay yooy nag yàlla na ko suñu borom bi tamit yombalee ay mbiram bu fekkoon dafa tëdd tey sonal ñëpp kuy nitu làmb ku ne am na lu ko fajee am na lu mu fajoo ay mbokk am nañ ko mais kenn du ko seetaan tam bu fekkoon dafa tëdd tey jii tëraay bi yàgg kuy nitu làmb di nga ñëw seet ko loo am it da nga ko ko jox te am na lu mu fajoo yàlla bàyyiwu ko am na ay doomam am na wërsëgam waaye li ci gaawal nii xëy na li tax yàlla def ko noonu suturaal ko loolu cet la mbiru yàlla bu ko cet jiitu yàlla naka yàlla mottali tëraayam ca Touba ci barke Seydina Mouhamed alayhi salaatu wasalaam di ko jaale nag presse bi di ko jaale communicateur traditionnel di ko jaale ménager yi promoteurs yi mbër yi ñëpp rek tey bés bi tey dafa yaatu bés bi tey dafa yaatu ceebu jën la ceebu jën moom Sénégal foofu dugg fekk ko fa bés tey bi nag noonu lan mel tey sëñ Modou Niang ñëpp a ko xam àdduna yëpp a ko xam le monde de a perdu un un homme un boo xamante ni wax naa ko fii léegi gawmatuma ñu am ku ñu ni moom promoteur na duñ jeex. mais ku mel ni moom attention je benn je je pèse mes mots ku mel ni moom ci qualité valeur baax woyof sedd jub non non c'est sûr c'est sûr dootu amati mën nga gis ku mel ni moom waaye dina manqué benn wala ñaar ci yooyu waaw ñu baax bari nañ mais ñii dañoo tàng jër ñi baax bari nañu mais ñii dañoo naqay deret ñi baax bari nañu mais ñii dañoo xaw a na ma yàlla baal ci moo bi jubuñu. ñi baax bari nañ mais am ñoo xam jub nañu dal nañu gore nañu mais amuñu moyen am ñoo xam ne nii dañ ñu làmb dafa metti bàyyi nañ bi yàgg mais moom li ci metti yoo xam ne ko tëgg na ba tay amul lu mu fayee kii mën na ma euh, jël euh, témoin Pape Diagne mi na ba tay amul lu mu fayee mais bàyyiwul dana fay ñëpp boo déggee am lu mu fayee am na làmb joo xam ne maa ñëw taxaw ñu ne 40 000 francs moo génn ci gise bi ñaata la dugal des millions nga pare gise bi génn 40 000 francs ba pare mi ngi tëgg boobu ba tey mi ngi tëgg ba làmbam teguwaat ci yoon. kii làmb amel na ko ñu doon euh, journée tey bi. Euh, ba je man je man maay Pape Samb di bras droit wu euh, li ma la mën a xamal daal mooy lépp lu la nit mën a wax la muy bàyyi mooy ëpp ñun ñu liggéey ak moom nekkandoo ak moom ñoo la mën a wax kan mooy sëñ Modou Pambaay mi ñun ñoo ko dugal ci làmb ji comme ni mu ko waxee ñun ñoo ko ñun ñoo ko samp sëñ Modou tey juruma du ma rakkam du ma mbokkam ci deret mais tey man mënoon naa jël engagement taxaw ñëpp taxaw Sénégal yëpp taxaw ma ne ku sëñ Modou amel bor ñëwal maa lay fay parce que daf may leer ni bu kenn ñëwee ñaar du ñëw te bu kenn ñëwee danaan la yaakaar naa ne ameel na ma échange comprendre ñun ñoo nekkoon famem ñun ñi nga xam ne ñooy liggéeyaloo ak moom ñun ñoo nekkoon digganteem ak mbër yi digganteem ak famille moom ci boppam digganteem ak autorité yi ak ñëpp lu muy wax ak ñun du ko wax ku mu bokk ak ndey ak baay personnellement man li muy wax ak man du ko wax ku mu bokkal ndey ak baay du ko wax ku mu bokkal baay te loolu sax moo boobu sax da ko bañ sama doom baay da ko parce que ñi mu bokkal baay sax la gën a jàpp la gën a jàpp en grosso modo daal c'est la jeunesse sénégalaise qui a perdu nekk na nit ku am colère loo wax mu ne lu ma sant mooy jaamu leen yàlla te liggéey leen. sëñ Modou bu jéenee këram manifestation wala mariage wala dara lu mënta ñàkk moo ko jéenee mais sinon da nga fekk këram soit mi ngi santale soit mi ngi ubbi ay kaamina ma xasidaam di jàng musoo ko dégg fu ñuy werantee mosoo ko dégg fu ñuy xulooyee musoo ko dégg fu ñuy xeexee wax ju ñaaw du dugg ci moom léeg-léeg sax lamb ji bu jaxasoon ba jaxasoo ñun dañuy jël parole ku ci mel ni ñoom ma xale yi dugg ci téléphone bi wala jël dara nar a wax mu ne déedéet su ma doon yéende du ma waxee nii su ma doon yéende du ma doxalee nii noonu lañ daan wàññee ba mu jigee dañ koy mere sax ñun na ko yow nit ku lay xeexal sax nga taxaw sa diggante moom ak say noonu soo waxee mun a àdduna amul solo en grosso modo daal loolu laa la mënoon wax ci sëñ Modou parce que li ma bëgg wax yëpp ko wax je suis j'ai le cœur meurtri mais soo waxul loolu la rek mais yàlla na suñu borom xaare àjjana te yéexee ñun ñëpp ni ñu ko waxee ba tey rek ñu ngi nii ak ki nga xamante ni moo di Matar Ndiaye Matar Ndiaye nag ku ne xam digganteem ak Serigne Modou ñaa mën naa ni combat Serigne du Niang yëpp moo koy monté ba ci grand combat bi nga xamante ne amoon na tey Matar ñu ngi lay jàlle li ñu bokk waaw guy gi ñu ngi leen di ziare maa leen nuyu di nuyu Thier di nuyu mbokk internet yëpp di wax rek kon ni ñu koy waxee ni ñun ñëpp ci yàlla lañ jóge te ci la ñuy delluwaat di wax yeewu nañu ak tiis ak naqar muy ku baax nit ku am yar nit ku dal nit ku teey koo xam ne xëccoowul doo ko dégg wax lu ñaaw du ko def kon bu fi jugee tey dañu ñaanal rek njëgalu yàlla lañ koy ñaanal ci barke Seydina Mohamed <clears throat> di ko jaalee nag njabootam di ko jaale ñoom njagañang doomam ñoom nday aram fatumis di ko jaale soxnaam yooyu di ko jaale gorom samay anday mati ñoo ñëpp ma la koy jaale di wax nag yeewoon nañu tiis daal wax dëgg yàlla am nañu lu ñu metti trop trop di ñaan rek yàlla xaare ko àjjana waaw dama yeewu rek gis euh, yaay Fatal mooy soxna bu ndaw bi nga xam ne maire Mati moom sama yaay la sama lépp la ma taal sama connexion gis mu woo appel yu bare ma ne ah lii lu jàmm fajar gi ma gis appel maire Mati ma lire vocal am ci la ma ah sa waa ji de noppalu na même moom mi ngi jëmoon gàmmu Mbelgoor ndax dem na ba Kébé maire bi muy yegg euh, décès bi dèjà moom mi ngi ci yoon bi sax di retourné ndax euh, Kébé maire la ko yëgee. ci la ma woo noonu daal laa bi nag nekk lool wax dëgg yàlla. def parce que gën nañ ci am def rek mooy la ma wax kay doy na muy nit ko yaru la nit ko dal nit koo xam ne xëccoo woo dara dara dara dara sëñ Modou du promoteur du mbër du combat du CNG dat wala leneen même lamb ji mu tëgg tey ji def ci dépense yëpp. buñ ñekkoon léegi CNG ni ko làmb yi dootu mën a am du laaj sax lu tax moom day waxee kon ne garaawul moom lu dëgër rek mu bàyyi fa seeti leneen amul dara dara dara loo xam ne mos na ko xëccoo ci làmb CNG bañ nañ ko ba bira barki dem rek yàlla xam ne yàlla laa jël seede mi ngi naan ma sëñ Modou jàppale leen ko moom si di jaxate bira barki démb waaw mu ne ma ndax sëñ Modou xam nga rek man ko man ko sëñ Modou loolu du fii booba bira ñëw gu moom mosul bokk ci werante CNG lu xeex ci CNG ay werante yooyu moom boo waxee rek mu ne moom du xëccoo dara li may wax rek moom daal lu ko nit gën a bëgg rek mu bàyyi la ko ne ci leneen waaw ñu koy ñaanal daal njégalu yàlla rek di ñaan suufu Tuubaa jéem a jëm yàlla na oyof ci kawam. non man na xaw na nañu ko jël déggante tuuti wax dëgg yàlla ndax boo xool euh, Ndoye mooy assuré intérim bi liggéey bi li ci gën a bare ci loxo Cheikh Ndoye la nekk donte nag combat bi tëgg yi ci gën a bare semaine ba ñu bëri grand combat comme ni ma ko waxee sama ñaari mbër ñoo waroon bëri grand combat bi boo jóob sàkku xam-xam moo waroon nañ njëkk a bëri ak carrière tey ji ñoom ñoo waroon bëri boo jóob am blessure ci genou uni médical ndooy wax ma ne ma monté beneen grand combat ma monté beneen grand combat muy bébé garga ak tubaabu joor bu tiwaan pël gis nga boo jóob ci suba rek la ma mujj woo moom it ne ma man de damaa dégg xibaar bi man ko waa noonu la demee fi mu toll dèjà boo jóob ak carrière programmé nañ leen ci mois de mai bi. daan na jël plus de lu mat ay cinquante mbër di leen bëriloo ci ñaari fan. non non noo dina manqué nag. ci làmb dina manqué. loolu mënut ta ñàkk ndax sëñ moo fi ne boo xool ci doyen à part Gaston moom nga fi nekk promoteur bi gën a mag bu dul Gaston moom moo jiitu ñëpp ci làmb tey it comme ni nga ko waxee moom moo ëpp lu muy tëgg mais tamit euh, dañuy jéem a xool rek comme njabootam ñun ñëpp jaaxasoo nañu ak ñoom ay doomam suñu doom la suñu lépp lañ Cheikh Ndoye nga fi Pape Diagne Serra sang fi bi. ba vide boobu duñ ko sentir quoi hmm. jaajëf. Euh, comme ni ñu ko waxee ba tey rek ñu ngi nii ak ki nga xamante ni moo di Dieye di Dieye promoteur di nawleem aussi ci làmb euh, Dieye ñu ngi lay jaale li nga xam ne moom la ñu bokk. waa maa ngi leen di siyaar yéen ñëpp di leen wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun euh, vraiment tey Sénégal laay wax sax ak àdduna bi yeewoo na yeewoo nañu mbetteel yeewoo nañu naqar yeewoo nañu tiis waaye nag dañuy wax ne yàgg na ci àdduna muy suñu mag. suñu xarit sëñ Modou Niang di Mouniang production euh, ñu xëy tey rek annoncé ñu Noël bi vraiment mu nekk lu triste ñun mais dañ koy ñaanal yàlla fa mu jëm yàlla na fa fekk yiw yàlla na ko yàlla teeru ci wax ju rafet ak jëf ju rafet ji mu doon def fii ci réew mi ak li nga xam ne moom la doon liggéey mais vraiment moom metti na trop foog ab passé na ko waaye nag di sant yàlla suñu borom nag yàlla bu jëlee jaamam dañ koy ñaanal yàlla mu yërëm ko bu baax a baax a baax baax waaw. relation nga amoon ak sëñ Modou. waaw sëñ Modou relation yi amoon nag moom passé wul relation ci làmb ak vraiment fu ñu daje rek mu ñuy xelal lu baax di wax lu baax ku ne xam ne sëñ Modou moom lu baax rek la ko di ñu xamee foo ko gis ku ne. lépp loo xam ne di si gis boppam ci lu baax mu nekk ci di xelal xale yi ak ñi topp ci ginnaawam du baax parce que ñëpp dégg nañ ci mu doon wax ne nit ñi nañ dugg ci lu ñu mën di def lu ñu mën pour baña sonal kenn boo déggee moom moo tax mu doon def lu mel noonu nekk nit ko oyof nag ba noppi itam ñu xam ci moom ak taalibe ak bi mu nekk taalibe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul kon fa mu jëm yàlla na ko fa sëriñ bi teeru vraiment waaw. tey sëñ Modou est-ce que du woon di handicap ci boo xoolee xale yi nga xam ne doon leen dajale ci weekend bi ñuy bëre. waaw euh, dañu wax nag ne euh, daanaka du wax ne bata dem bato ko semé day wax ne bàyyi na fi njaboot. Euh, njabootam euh, lépp li nga xam ne moom la doon def rek yàlla na leen yàlla teg loxoom moom moom nga xam ne moo am kàttan ñu di ko ñaan ñu mën ko eggale ku mel ni ñoom njaga ñu ngi koy jaale bu baax a baax a baax di ko jaale ñoom xaadim ay doomam lañu di wax ne yàlla na yàlla oyofal yan bi seen kaw parce que nag nit yàgg naa nekk ci Sénégal dem ak njabootam féete ko ginnaaw la mu doon def ñu def ci lu ko ëpp wala lañ doon nekk ñu nekk ci lu ko ëpp par rapport ba nañ ci limal ay nit yu baree baree baree bari ku mel ni Serigne Boub ku mel ni man mii taxaw ku mel ni keneen ak keneen suñu papa yi am na ci luñ nekkan ñu doon leen ci jàppale ñu fi jógee dañoo gën a jàpp kon dañu koy wax rek sëñ Modou li ñu mën a wax tey comme ci naqar lañ nekk yàlla na yàlla yërëm te yéexe ñu waaw du ñàkk ni aussi am na ay jikko yoo xam ne tey mën nga ko seede ci moom yoo xamante ni doon nga ko bàyyi xel ci moom aussi. li ma la wax rek baax te nit ki boo wax ci boobu rek lu baax rek mënul paase baax sëñ Modou nekk na nit koo xam ne ku simple la sëñ Modou nekk na nit koo xam ne ni ku oyof la ku jullite la. waxtu julli ba daanaa gis bu ñu toogee waxtu julli vraiment mu koy fonk euh, daanaa gis sëñ Modou itam muy xelal nit ñi lu baax te loolu rek lañ fi am fii ci àdduna nga génn tey àdduna ñu mën a taxaw ku gis mbooloo mi ni ñu taxawee nii képp ku ko yëg rek te doon nawleem wala ku ko yëg te doon am di jàmmam wala nga ñëw taxawu ko waaw voilà. merci jërëjëf. acca ki ñu toogal nii nag moo di guy gi 95 moom tamit nekk ci làmb ji euh, tey ñu ñàkk promoteur bu mag mooy moo Modou guy gi gannaaw ba ñu la nuyoo jaale la bu baax a baax li nga xam ne loolu la bokk. waaw maa ngi leen di fay a wasaare mbenn di la nuyu euh, di leen jaale li nga xamante ne aussi tamit moom ñu bokk. parce que damay wax ni sëñ Modou Niang tey jeunesse moo ñàkk tey ndaw ñooy ñàkk sëñ Modou ñaar doonoon na koo xamante ni li muy liggéey ci ndaw ñu sax duma ma ni kenn du ko liggéey mais bariwul ngay gis ñu koy liggéey ci ndaw ñi sëñ Modou Niang da daan boole plus de cinquante mbër ci vendredi samedi dimanche mën naa ci cité benn ci man mii man mii sama combat yu ëpp sëñ Modou Niang moo ko tëgg. mosul yoreel mbër xaalis sëñ Modou Niang mosul yoreel kenn xaalis ba ci journée bi nga xam ne tey moo ko tëgg boo demee CNG ñu la añ yi sax ak lépp sëñ Modou Niang fay na ko kon am nañ ci moom njort bu rafet boo xamante ni daal na ko sëriñ Tuubaa teeru teral ko. Hmm. waaw bi ñu déggee ci say kàdd mu nekkoon koo xamante ne nii ay mbër yu ndaw yu bëri yoo xamante ni ñoo ngi si arène bi moom moo leen doon génne di leen yéegal ci kaw est-ce que loolu du dem ba indi benn encouragement maanaam benn euh, gàllankoor tuuti ci ñi nga xam ne ay mbër lañ ñu ndaw. waaw loolu c'est vrai tey dem sëñ Modou Niang mbëri ndaw yi dañ koy dañ koy yëg parce que tey ku mel ni sëñ Modou Niang est-ce que dina amati koo xam ne benn journée daraan tëgg dix combats xale yu ndaw di leen jël di leen jox ay grand man je me rappelle sama combat ak Boy Jules sëñ Modou Niang moo ko tëgg ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni tey boo xoolee ku ci mel ni guy gi combat yi mu bëri yëpp sëñ Modou Niang ko tëgg nga xool ku ci mel ni Balla Gaye keneen ak keneen kon kooku tey bu demee ah wax dëgg yàlla ñun mbëri ndaw yi dinañ ko yëg parce que tey dama wax ni ku mel ni sëñ Modou Niang est-ce que dinañ ko amati koo xamante ni baax na sëñ moodu combat su ngeen ko musaana waxaale man dama daan jékki-jékki ma tar Ndiaye wax ne ma sëñ Modou moo a tëgg sa combat xaalis baa ngi vite fait et fait la te bokk na ci li mu gënoon a neex ci moom sëñ moodu du teg nit pression sëñ Modou da nga daan jékki-jékki sax jël sa téléphone woo ko waa Père maa ngi préparé de muy la ah defal li nga mën rek jarul sonn defal li nga mën jarul sonn kon nag kooku tey bu demee euh, vraiment làmb am na naqar daal. d'accord mhm. xibaar bi. waaw man tey ci fajar bi ma yeewoo lañ ma woo biñ ma woowee ni ma yow sa père daa gaañu de fekk na boobu maa ngi julli ba pare. di ñaanal sumay wayjur fi ma toog yor sama kurus ñu ne ma eh, sa père gaañu na mooy leen ban père ma ne kii daal li su nekkul dafa gis sama estati sama yaay bi ma bi ma bi ma ma estati moo tax mu may mu may kii nii quoi ma ne ko ban père mun ma sëñ Modou Niang ma ne ko non sëñ Modou mënul dem mun ma sëñ Modou Niang gaañu na ma ne ko waaw mooy yow sëñ Modou Niang moo dëgg làmb tey jii mun ma sëñ Modou gaañu na ma ne ko ok après ci laa coupé ma woo son ménagère Matar Ndiaye mu ne ma ah noonu la demee de sëñ Modou gaañu na nii laa ko yëgee. mu metti lool ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko te jéggal ko taxaare ko àjjanay firdawsi. Mhm. merci beaucoup Gouy Gui ñu ngi bu baax a baax. koy jaale yéen aussi tamit jërëjëf. laa ilaaha illallah Muhammadu rasuulullah laa ilaaha illallah لا إله إلا الله محمد رسول الله عليك صلاة الله ثم السلام فإن فؤادي عندك الدهر أجمع عليك صلاة الله ثم سلام فعيش بدون الحب فيك مضيع عليك صلاة الله ثم سلامه لقاء كحسب الطير للقلب موجع ويوم كألف من سنين أعده قصيرا فما نفسي بذلك تقنع عليك صلاة الله ثم سلامه على رغم أنفسك